Aïcha mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme altine bu jot rek su waxtu wi jotee ngeen jàkkaarloog ñun ci l' émission des émissions ñu fas yéene ci ànd ak El Hadj Sa Ndiogou Mbengue ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen yéen mbokk internet yi rawatina nag diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuy leen ñaanal leen jàmm ñanal ko nag suñu seriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacké yàlla suñ borom yàggal ko fi lool mu ànd defal ko jàmm ko njabootam ci biir réew mi yëpp suñu mbokk yëpp ñu ngi leen di ziar rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne saay su nekk rek duñu tàyyi duñu suivre nuyu nag euh, le meilleur chroniqueur de tous les temps Baye Assane Mesere mi nga xam ne pression bi ci l' émission des émissions ni ñu koy tegee du moom daal doy na waar mi ngi noonu euh, ñuy ànd nag ak Alaaji mi nga xam ne saay su nekk rek daana indi xalaatam ci li xew ci penc mi ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko jàmm Alaaji maa ngi lay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 nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Ahla nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi lew na Ñaseen Medina Baye Tiwaan Njaasaan Laayeen Ceneba alhamdulilah di nuyu waa jaamal nuyu waa kër Maam El Hadj sunu mbokk jàngu bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel El Hadj Modou Diouf moo nekk ci xarala gi ñu koy nuyu ak Abdou <laughs> du tappale. jàmbaar la waaw ñu ngi di ñëpp. mbokk internet yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm. doo doo nuyuwaale la meilleur chroniqueur mi ñuy teg naan heure bi jot na rek. waxtu bi jot na kooku day tappale. kii dana ko woon xam nga bu fekkoon ne mi ngi contrôler mi ngi def liggéeyam. du ne ko cinq minutes mu ñëw douze minutes après. <laughs> naan ko heure bi passé na waaw naan heure bi passé na. téléphone bi rek ku ko dénkum réew yaa ngi ci heure maado yaa ngi ci heure ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom Mbaye Assane di ko ñaanal jàmm nag ci sax dàkk. Modou euh, tey nag bëgg nañu waxtaanee la xew euh, ca Colobane ñëpp xam nañ ni nag premier ministre bi demoon na fa ànd ak euh, madame Aïda mbooj mi nga xam ne moo jiite DER waaye nag moom jàkkaarloo na ak ña nga xam ne ñoo dëkkee foofu lee muy ndaw ñi ñoom nag wax nañ ko li leen nakari foofu wax ko itam nit ñu occupé seen place boobu nga xam ne foofu mooy seen dëkk waaye ay kàddu werante daal juddu na fa dañ leen ko digtal léegi ngeen suivre ko bu ñu ci matin jàkkaarloo ak Babacar Fall ak jor de Déthié Diop moom nag ñëwaat na ba tey yàbbiwul kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko moom naa kaddu yi mu yëkkati jëmale ca moom ñaaw na lool ci gi ci dégg-dégg ndax nee na ko mënoo fi nekk rek bëgg a nekk doomu yàlla di menacer ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo jiite euh, réew mi. Euh, moom daal kàddu yooyu la yëkkati li ko waral nag du lenn rek lu dul la war a xew fële ca euh, assemblée nationale ngir rek ñu bëgg mu ñëw jàkkaarlook ñoom def li nga xamante ne ni moo di déclaration politique générale. bi ñuy xaar ci moom boobu ba tey daañu ko euh, teg léegi ngeen déglu ko alaaji daal di ci indi xalaatam Daouda Mine moom itam ñëw na daal di wax euh, ci li nga xamante ne nii moom moo euh, soxal déclaration de politique générale lee wax ne premier ministre bi daf ko war a def ndaxte article 55 de la constitution moom moo ko wax waaye nag nee na li ci ñaaw rek mooy que ni réglement intérieur boobu ne nga xam ne dañu ko falsifié woon dañ ko war a ba noppi ndaxte fi mu toll nii Ousmane Sonko dara tënk ko mën na ko def parce que ñi ñi fi bàyyeekoo tey ñoom ñu doon ànd ak ñoom ñoo taxaw bëgg ko teg pression waaye ñoom. gisoon nañ niñ fi defoon ndaxte seeni premier ministre respecté wuñu woon délai yi nga xamante ne ni moom la ñuy toppee premier ministre bu bees bile ñu daal di ànd ak yéen nag ak modu ñu dem xool yi ki nga xamante ne ni moo di Aïda Mbodj ca Colobane waxtaan wa mu sekk ak ña fa dëkkee sa dellu yaa ngi ci jàmm yaay ñun Colobane lañ dëkk ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo commerçant yi commerçant yi commerçant yi ah, biir Colobane dañ fi am ay soxna ñun suñuy sœur a ngi Touba di sëy ay Kaolack ak ay Ñambur ak fépp di sëy kon ñun ñoo ak ñoom ñoo dëkk bëgguñu lu ñaaw suñu diggante ak ñoom xam nga ñu bëgg dañu ñu teg ci yoon ñu teg ko ci ñu nekk ci jàmm kenn waxu leen bu leen daan seen doole mais tali bii tey bu doon yëkkatiwuñu table yi kon seen oto yi yéen tout circulé nii dañu waxante ko teg ci yoon teg ko ci kii bu ñu waxee ñu ne ñu yéen a jaay seen kër yi la ñu jaay waaye jaay ñu trottoir yi jaay ñu tali yi ñun ba ñoo bëgg nekk ak ñoom si jàmm kan nga a dama ki ma ko mënul wax comme ki ma ko bëgg wax.

kenn ku nekk fa ngay liggéey di fa développé di fa fay juuti di fa luye di fa joxe di fa fay lekk di fa fay ndox foofu apport ba fa am ña fa juddu amuñu ko kon yaa yow kon la yow ñu jaay ci kaw tali yaa yow contradiction yaa yow contradiction yaa yow contradiction yaa yow contradiction yaa a contradiction yaa yow contradiction yaa yow contradiction yaa yow contradiction yaa yow contradiction

ayca mi ngi noonu alaaji eh, gis nga la fa xewoon mel na ni daal gars yi seen xol xawoon na jug tuuti eh, kàddu yi daal lañu fa waxante ba tax eh, coow li daal bari woon na te bu ñu dégloo ndaw si mel na ni ñoom tamit bëgg nañ ambulants yi jóge foofu bokk na ci ñi ko sàkku waaw mu nekk loo xamante ne bi lu am solo la mm-hmm. ba tey lii mooy terrain bi waaw boo ñëwee ci terrain bi euh, lu ne mën nga ko dégg waaye lu ne tamit dafay am rek ab tontu boo xamante ni bii moo cay juddoo soxna si wax na wax joo xamante ni wax ju am solo la mu wane ni su fekkonte ni cantine yi dañut mënu leen a tourner seeni oto jaar fii loolu mooy li soxna si wax. daal di wax tamit ne ak mbokk dox na ci seen diggante ñoom ak ambulant yi hmm. ñu wax ni takk nañ fa jabar defe naa ni nit ki boo ko nawut doo ko may soxna déedéet que soxna soosu wax ji dafa xaw a contradictoire quoi parce que euh, ni mu waxee maanaam reconnaître na ni am na ñoo xam ni fa lañ nekk lal fa seeni taabal donte dëkkuñu fa waaye may nañ leen fa ay jabar mhm. ñaleen leen fa may jabar xam nañ ni may ñu jabar ay wëyu mais dañu may ay jabar ay sénégalais liggéeykat yoo xamante ni ay mhm. liggéeykat lañ kon boo jëlee ñaari yëf yi mhm. ñaari yëf yi nga xamante ni bi ni mu waxee mën nga njort ni parce que dama jàpp ni réponse bi Aïda Mbodj def dama ni ab politicien la boo xamante ni bi tamit dafa taxaw taxawaayu politicien yamalewu ko rek ci Eh, koo xam ni ku dëkk la. parce que bu fekkente ni bi seq nga lien de parenthèse yow ak ñi nga xamante ni bi ñoo fa nekk même bu fekkee ne xam nga ni lii ñuy def eh, xatal na dëkk bi parce que même ambulant yi ñoom xam nañ ni lal bi jaaduwul. mais dañu war a wut ay solution yoo xamante ni bi moom lañ ki parce que mairie bi aussi tamit lii ay dëmboo ju wax da ngay koy déggaat que ni fay nañu. dañuy fay ay tax mm-hmm. dañuy def li nga xam ne moom lañ war a def. Mm-hmm. ki ñëw kañ di la fayloo taxe di la defloo loo kii moom moo nangu sax nekk fi. Mm-hmm. parce que tey jii bu fekkente ne nanguwoo nekk fi. doo ko fayee doo ko fayeeku mais boo demee ba jox ko ni ko pour mu fay ay taxes ngay def ci sa kees ak yooyu cela veut dire que ni yow ci sa jëmmi bopp nangu nga nekk gi foofu. gis naa ambulant yi daal di wax ne. mairie yi yëpp liñ doon joxe ci tabaski bi di ñaan dañuy dimbali nit fii lañ ko jëlee ci ñun ñun lañuy ñëw fayeekuñu après ñu fay ay taxes ñu neexal ci ñi nga xam ne ñooy dëkk ya hmm. comprendre loolu nekk loo xamante ni bi hmm. eh, lu am solo la xam nga dëkk yi ñi dëkk dañoo am ay jafe-jafe loolu dëgg la hmm. parce que nañu dëkkee kii na mais ambulant yi tamit dañoo am ay jafe-jafe problème a leen fa indi problème bi leen fa indi mooy ñu ci bari ci ñoom Eh, jàng nañ ba pare. amuñu liggéey. Mm-hmm. c'est parce que lan moo tax amuñu liggéey mooy ñi ñu dénkoon réew mi ñu nekkoon fi. war a doxal ñoom ñoo doxalut lenn loo xamante ni bii tey permettre na ñi nga xamante ni bi ñooy ah, ñu doon jàng am liggéey ñooñu bi ñu génnee ñu wuti pexe. Mm-hmm. ne a ah, ñun de duñu sàcc duñu fen mm-hmm. duñu def nii duñu def ne waaye dinañ jéem a wut loo xamante ni bi dinañ ci ñaq. ñu créer li nga xam ne mooy créer ku ci nekk moo xam dem sa nijaay mu lebal la moo xam nga dem ci banque mu lebal la wala nga dem lijjanti xaalis pour jéem a teg leen jéem a entreprendre jéem a def li nga xamante ni moom la ñuy wax commerce. teg dara jéem a teg dara kooku boo ko dimbalee rek mu mën a participer ci développement réew mi. Mm-hmm. mais nag naka lañ leen war a dimbalee maanaam du danga leen di jël rek damm taabal yi rek rajaxe sànni. loolu du solution defe naa ni. ci foofu la Aïda Mbodj doon xaar pour soxna si defe naa mu waxee ci côté boobu. xam nañ ni problème bu ne këtt na joon la il suffit que nga régler problème ñi yaa ngi teg ñuy problème. parce que dindi table bi mooy bégal nga bi sénégalais. bi mais teg nga coono bii sénégalais. Mhm. léegi nag noo mën a def ba kenn ci ñoom. dootul du nekk ci ay jafe-jafe loolu xalaat la yoo xamante ni bi mën naa génn ak ay moyens yuy accompagner ngir lu mel noonu mën a ne. parce que defe naa ne euh, réew mi toll na foo xamante ni fii tey ñi voté pour coppite am ci réew mi ñi ci ëpp ambulant yi yëpp ci lañ bokk ñoom ñu boo demee ci seen biir ña ci ëpp ci ambulant yi ci ñi voté pour coppite am ci réew mi la. Mm-hmm. kon bu ñu leen woowee ci defar. Mm-hmm. defe naa ni euh, duñu duñu duñu ko bañ. kon am na noo xam ne buñ ko ko defee yëf yi yaakaar naa ni. dina mën a dina mën a changer. comprendre nga mais lii nga xam ne moom nga gis nii tamit. bon dalay wan rek ne la lii c'est très important parce que man bi ma gisee li ma gën a lool dalay wóor ne la rek soxna si wax na jox ayda Aïda wax na delloo ko tontu na ko waaw tontu na ko ku ci nekk tontu kenn dépassé amu ci wax na li nga xam ne mooy xalaatam moom it xamal na ko li nga xam ne mooy mbir yi donc mu nekk loo xamante ni bi lu am solo la moo tax terrain bi dafa baax di wàcc léeg-léeg saafoonteeg sénégalais yi mhm. nit ñi wax mën nañ génne seen colère wax seen metti metti yow it nga tontu leen lépp rek mu nekk ci cadre ñu bëgg a defar mhm. waaw comme que ndangu naa ni moom am na seen i mbokk yu bari yoo xam ne bi sëyi nañ te ñi nekkoon foofu ñoo leen leen takk man yàgg naa dégg ci tablier yi nekk foofu yëpp wax dëgg fa yàlla ñuy wax ne ñun daanaka fii lañ dëkk parce que dañoo am sax ay soxna ci kii gox ci gox bi loolu nag wax dëgg fa yàlla nekk na loo xamante ni àddina bi lépp loo ci gis waxtaan la démb le premier ministre wax na ko ni communication dafa am solo ba féliciter préfet Rufisque bi façon bi nga xamante ni bi moom lay defee wane ni mi ngi waxtaan ak nit ñi di communiquer ñoom di fo di expliquer parce que pareen saay am na koo xam ne mën na dindi sa bagage sax wóor na yàlla doo ko ci mere mais façon dafa am am na ñoo xam ne dañ koy dindi dindi koo xamante bi dañ lay wan ne la dafa mel ni dañ laay yéene nga torox hmm. xam nga loolu bu amee tamit. day xaw a metti day gën a metti donc lépp loo ci gis rek waxtaan mm. daf ci am solo ak déggoo waaw waaw mi ngi noonu jërëjëf Mbengue waaye kii nag moom député la ci assemblée nationale bokk ci Benno Bokk Yaakaar muy Abdou Mbow du Mbow nag euh, chargé waat na Sonko euh, nee na nag euh, du ma def rek lu dul ñu dem déglu ko parce que li mu wax moom wax dëgg yàlla neexut a jaaraat Modou fi mu xam nga ko war mooy jéema xool réew mi fan lañ ko jëlee waaye moom jàpp na ne fi mu toll nii mooy doomu yàlla day menacer ñëpp day bëgg a asphyxier ñëpp saaga na gendarmerie saaga police saaga euh, euh, procureur yi saaga la presse ba pare tey mu ne dafay asphyxier tout le monde lépp la bëgg contrôler nañu dindi contrat yi xale yi nga xamante ni ay sénégalais ñu jël leen nekk ci ay structure ñu ne CDD yi nañ ko xool CDI yi nañ ko xool jàpp naa ne li nga xam ne moo taxoon ñu fal ko waaye mënuñoo fal nit fal ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu bëgg nekk ci réew mi continuer nañu nekkee woon parce que jàpp naa ne yow bu fekkee ne da nga wax ba ñu jox la nguur mais nga war a dal nga war a nekk nit koo xamante nii nit kuy wax dëgg nga parce que Ousmane Sonko li mu fi wax lépp dafa bari parce que tey jii bul fàtte même petrol bi ñuy wax newoon na defar nañ pipeline yi bateau yu ko war a yóbbu ñi ngi taxaw ci géej gi ba dem nañ yóbbu ko ñi ngi koy waaj a yóbbu xam nga keroog bi pétrole bi génnee sénégalais yu bari dañoo jombi daan ne déedéet xanaa lii kay du pétrole bi ñu doon wax pétrole pétrole bi Ousmane nee dem na donc juste parce que temps bi comme bariwul moo tax mënuñu xam nga boo toogoon fii di wax Ousmane Sonko wax na lii wax na lii mën nañ fay toog ba midi. donc loolu kilifa dafa war a moytu loolu. nit ñi dañuy boole yu bokkul. règlement intérieur bu assemblée nationale loi organique la xam nga tey ji mën nañu wax ne. depuis 2019 ñu supprimer poste premier ministre bi am na loo xamante ne nii intégré wuñ ko. dans le règlement intérieur cela n'a absolument rien à voir ak la constitution bi nga xamante ni quand on a ramené le poste du premier ministre disposition yi nga xamante ne ni moom moo régir diggante exécutif ak législatif mi ngi ci constitution. parce que article cinquante cinq manqué manqué manqué règlement intérieur mënu leen mënu leen ko layal loolu mënu leen ko layal man dama lay wax li nga xam ne moo am dama ne. article 55 de la constitution daf ne le premier ministre quand il est nommé fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale loolu constitution moo ko wax te constitution mooy sart ndey réew bi beneen bi mooy article 87 ñëwaat ci alinéa bi daan l'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par une motion de censure foofu la ñu sukkandiku woon pour déposer motion de censure bi Amadou Ba ñëwee loolu c'est deux choses totalement différente c'est pourquoi nous exigeons Ousmane Sonko mu ñëw devant l'Assemblée nationale def sa déclaration mais ci ban délai ci ban délai parce que non, non, tout le monde évoque les 90 jours non, alors 90 jours yi fu mu nekk nii kenn mënul naan fii lañ koy teg ay ca mi ngi noonu alaaji <laughs> Abdou Mbow de lii la wax nee na daal ginnaaw bi mu nekkee fii bëgg moom nit ñi terroriser leen daf ko bëgg a xamal daal li tax ñu teg ko ci réew mi mu mel ni Ousmane Sonko xamu ko nga am na man defe naa ne <clears throat> eh, ab jullit la eh, jullit nag boo ko doonee eh, dafa am loo xam ne waru la parce que sunu boroom dafa bañ ba wax ci xul walaaw wane ni jurut te kenn juru ko te képp koo xam ne jullit nga defe naa ni danga war a wéy ci loolu nga xamante ni bi moom nga xaw ma nag nga doon nga bañ koo nekk mais bu fekkente ni jullit nga moom. da nga war a respecter loolu parce que defe naa ni yàlla dafa dem ba tontu. waaw nee mooy bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi. ni jurut kenn juru ko. wallaay loolu nekk loo xamante ne bi loo am solo kon donc defe naa ni buy wax waxu politique. Hmm, mën na ci génne mën na rester ci wàllu politique te defe naa ni lii ni mu ko waxee nii sax euh, kuréel yi nga xam ni. taxaw nañ wax ni dañuy sàmm jikko yi war nañoo wax ak Abdou Mbow mi parce que xuus na mm-hmm. dérapé na ci loo xamante ni bii moom da ko warut mm-hmm. comme que mi ngi wax ni jullit la est-ce que loolu waru ko waaw leneen li am nag mm-hmm. mooy kenn woowu leen ci xuloo ak tàppaas <laughs> Ousmane Sonko xuloo tàppaasu leen daf na leen yéen député yi man de pare naa sama déclaration politique générale ba noppi waaye ci seen sart yi nga xamante ni bii mooy sart ni règlement intérieur assemblée nationale di doxee dangeen ngeen faa seppi man post bii ma yore muy premier ministre da ngeen ko caa dindi mm-hmm. ngir ma ñëw nag man def fa déclaration politique général defaraat leen ko mën naa leen a may fii ak. fukki fan ak lu mat fukki fan ak juróom. ci weeru juillet. ngir ngeen defar ko pour ma ñëw amal ko fa ah loolu nag bu ngeen ko defut comme man askan wi moom ma fal te askan wi bëgg nañoo xam fan laay yóbbu réew mi man de danaa organiser kon. loo xam xamante ni bii tey mënees na ko tuddee déclaration de politique général ma jàkkaarlook askan wi ma fal nga xam ni bii kat ne leen réew mi de fas yéene nañ ko yóbbu fii ak fii ak fii xamal leen ko. Mm. waaye nag ngal la def leen loolu député yi nag dañoo tàmmut liggéey tayal xam nga loolu mën nañ ko. ah mais moom nee na ñi ngi liggéey de ñi ngi waxtaan ci seen biir pour xool ay pexe ñu pexe nañ bàyyi pexe pexe leen fi jëlee dañ doon def pexe pexe pexe ba jóge fi <laughs> yaa ngi dégg nañu génn ci mbirum pexe ci ay pexe lañu yàgg a nekk ba jóge fi ndaxi pexe kon donc bu ñu waxati waxu pexe quoi mm-hmm. léegi nag eh, Abdou Mbow xam nga Abdou Mbow mii mm. kuréel gu mu jiite man dama leen di yërëm bay wa kàddu gaak yooyu Abdou Mbow fii la taxaw. ne ma corona virus bi day naaw. <laughs> moom Abdou eh, Mbow wallaay jot a fàttali dañoo toog def émission man ak moom <laughs> mu ne ma mu corona virus bi day naaw. ku dem ba tollu foofu xam nga parensaay li lay wan ne la gars yi xamuñu rek bu ñuy wax ci loo xam rek yow ci ngay xam ne xamuñu fekk ñi ngi ci dàggasante gii nag nga xam ne moom lañ nekk da ngay defee ne. Mm. li ñuy wax am na fulla am na wala am na fayda mais. ci caaxaan rek ca la mbir mi du xuloo mais boo seetee journalistes yi dañ leen di invité comme si mbir mi xuloo la quoi mais xuloo amu fi amul xuloo li leen Ousmane ko wax lu leer la léegi nag ñoom ñi ngi bëgg a wax naan bu dee amul déclaration politique générale bu dee amul lu mu wax pare naa yow kay ñi ngeen di def def leen ko nay suba nee nañ daa ragal assemblée bi. kon nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom dong nekk assemblée nationale. toj ko ñëpp contre ko. wala buy mu wax ba ñëpp daw génn. booy ko ne dootuñu ko déglu. loolu Ousmane Sonko dong ko fi def <laughs> taxaw assemblée nationale. ah maanaam plus ñaata député lañ nekkoon boobu est-ce que boobu matuñu woon euh, ëpp ñu woon kat matuñu woon ay cent cent nangam député ñoon ñu nekk fa benn nit jaaxal leen ba ñoom ñëpp ñu génn assemblée nationale moom dong muy wax. kooku da leen a faale la fi nekkoon li moo fi nekk ba tey. Ah, mais nee na affaire données yi changé nag. non yan données léegi moo nekk ci gouvernement bi. yan données yan gi. xam nga déclaration politique générale xam nga tey pour wax nit ñi fi ñëpp xam nga ñii dañ daan yor yëf yi di këyang këyangi di këyang këyangi nit ñi duñu xam fu ñu jëm sax mais gis nga réew mi nit ñi xam nañ fi mu jëm même bailleurs yi ñaan bon déclaration politique général da ngay joxe grande ligne yi def li gis nga affaire intellectuelle yooyu ñuy wax gis nga fi mu toll nii grande réunion boo xoolee gis ko. wallaay nit ñaa ngi gis jéego yi nga xamante ni bi moom la ñuy teg. Mhm. gis nañ fi yëf yi jëm xam nga ñii dañ doon bëgg a rey ak autosuffisance alimentaire ak nii ak naag nële euh, wax lañ daan def mais ñun ñu ngi soog a gis jëf ji ñu ngi koy jëf. ci mbay meeg et cetera ñi ngi jëf yenn yi. waa léegi kuy pour industrial <laughs> pour def affaire industrie ak affaire yooyu. gis nga ministre yaa ngi ñi ngi ci. ñi ngi ci yëf yi. mais nee na moom da ah? leen di jàngal ni ñu waree yore réew. kan ma nee na xamu ko de moom Abdou Mbow. Abdou pour mu ne priorité yi moom la doon wax Sonko. ñoom bu ñu xamoon priorité yi dinañ fi jóg. <laughs> ñoom ñoom bu ñu xamoon priorité yi dinañ fi jóg. Ah, ñoom xamuñu priorité yi. dafa war a boo ñëwee jël nangami milliards mille milliards def ko ci diggante bu gàtt. nga ne yow yaa xam priorité bi ah <laughs> ñoom ñoo xam priorité ñoom ñàkk a xam priorité moo tax ñu jëlee leen fi donc nañ xam ni. Mm. nguur gi mi ngi teg ay jéego yoo xamante ne bi sénégal yi ñu ngi ciy retrouvé wu ñu ngi gis nii wax dëgg fa yàlla gouvernement la boo xamante ne bi wax dëgg non seulement am nañ volonté am nañ bëgg-bëgg bi teyit matt mën mën nañ. li nga xam ni moom la ñuy def. Mm-hmm. te ñu ngi ci. ci donc foofu la leen foofu la foofu la sénégalais yi di xaar nguur gi te ña nga ca. waaw ah. donc nag wax dëgg fa yàlla. Mm. Euh, lii ñu def nii du mbirum gentleman quoi. Mm, parce que lii ñuy def nii président Macky Sall moom ci jëm boppam lii. aw xas la ci moom. parce que daf ñuy wan lekk nañu Ablaye Wade moo ko gën a bëgg réew mi. Hmm. parce que Ablaye Wade ay député am da leen woon accompagner leen Macky Sall lu mu bëgg ngeen jàppale ko ci. loolu la waxoon ay député ba muy dem ne bu ko kenn bloqué ci dara. Hmm. ñii nag ñoom day wane rek président Macky Sall moom. Hmm. ndekete lu mu gën bañoon réew mi jokk na parce que taxawaayu ñii ñoo koy wane quoi ñii ñooy incarné d'accord mi ngi koy mi ngi koy wax sax moom Abdou Mbow léegi muy article 55 bu constitution bi ni mu tëralee mbirum euh, déclaration boobu Daouda Mine moom indi na ci jàngatam ci beneen façon ñu déglu ko te dellu si le règlement intérieur ce qui fait qu'aujourd'hui il faut que règlement intérieur boobu ñu mun koo soppi mu dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy yoon à part de ce moment là mu am lu nga xamante ne moom mooy tënk le premier ministre donc li ngay mën a jàpp mooy le premier ministre dafa war a def déclaration de politique générale article 55 de la constitution moom moo ko wax mais maintenant amatul benn article bu nga xamante ne moom moo koy tënk ci ñetti weer pour que mu pour que mu def ko ci taarix boo xoolee am na ci ñu nga xamante ne ñu ngi foon waaw même bu fekkee ne instant boobu loi bi dafa tënkoon ne ñetti weer la mais dépassé nañ ko je peux donner l' exemple de feu Boun Abdallah Dionne yàlla na ko yàlla yërëm déclaration de politique générale bi mu koy def ñeenti weer la def doog a doog a def déclaration de politique générale boo jëlee Abdoul mbay bi nga xamante moom moo nekk le premier premier ministre de sous l'ère Macky Sall mm. ñu ngi ko nommé woon le 3 avril 2012 mais mi ngi def déclaration de politique générale le lundi 10 septembre 2012 soit cinq mois après boo jëlee le président Macky Sall en personne bi mu nekkee bi mu nekkee premier ministre mais six mois la toog doo ko def déclaration de politique ñu ngi ko nommé le 21 avril 2004 mais mi ngi def sa déclaration de politique générale le 20 octobre 2004 six mois après donc pour dire que bu fekkee da nga jël ci taarix am nañ fi ay cas nga xamante ne def nañ déclaration de président mais dépassé nañ largement nga xamante ne ñoom def nañ trois mois wala ñu def cinq mois wala ñu def nañ quatre mois cinq mois wala six mois il fallait que ñu def euh, déclaration président ci trois mois ça veut que ñoom seen bopp dañu violé woon la loi mm. actuellement nii tey ji tey ji le premier ministre na laay ko Ousmane Sonko defagul ñetti weer muy benn et la deuxième chose amul benn ayca mi ngi noonu alaaji daal gars yi daal kon dafa mel ni ñoom histoire de leen a rëcc ndax lii mu fi wax nii yëpp tey ñoom ci seen jëmmi bopp ci seen biir ñoom ñooy bëgg a pouse nit képpoo mu ñëw par la force ñu ci assemblée bi war a taxaw ak ñoom dafa mel ni loolu lañ namm nag non ñoom moom nangu nañu ay oral loi lañ respecté wuñ loi waaye dañu euh, bëgg Sonko moom mu respecté loi mais xamuñ ni biñ naan Sonko respecté loi ñoom ay hors la loi yu nekk ci hors la loi lañ fi mu toll nii xamuñ ni parce que attention de. waaw pourtant APR ñi ngi ci seen logique de ñoom logique hors la loi boobu déggoo ñu ne président Macky Sall def na six mois. te boobu règlement intérieur lu mu wax. daf ko tënkoon ci 3 mois. waaw président Macky Sall bul fàtte ni moom moo voté sans mm-hmm. carte d'identité. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. président Macky Sall moo fal ñeneen ñi nga xam ni ñoom it def nañ respecté wuñ lañ fa teg. Boun Abdallah 4 mois. waaw kee 5 mois kee mois. yaa ngi dégg. Mm-hmm. loolu yëpp ci ñoom nag lii normal na léegi nag bi ñu demee ba dindi loolu ci kii bi maanaam ñoom lu lu normalut moo normal ci ñoom. wala comprendre loolu comprendre nga li ma la bëgg maanaam léegi comme que dindi nañ ko ci kii bi bu ci nekkoon maanaam bu ci yëf yi nekkoon amul problème maanaam bu Ousmane Sonko bañee ñëw parce que mm. dañ naan bu ñëwee day nekk lu waat te ñun bëgguñu yoon comprendre nga eh, yaa ngi dégg léegi nag la fait que ñu dindi ko léegi nag moom dafa war a ñëw far force parce que lii nga xamante ni moom la Ousmane Sonko wax ne du yoon léegi loolu mooy yoon. parce que lii ñu din ah, comme que léegi ñoom fu ñu wéeru. léegi ñoom lu dul yoon mooy yoon ci ñoom. maanaam loolu lañ tàmm léegi nag man benn affaire boo ma jaaxal ci euh, Futurs Médias Daouda Mine day ñëw leeral macha allah. mais lu mu leeral Babacar Fall dina wut ku ko lëndëmal. <laughs> Daouda Mine day sonn ci affaire yi wut ay kii comprendre nga. mais Babacar Fall day bàyyi ba mu pare mu wut ko lëndëmal lépp lu daaw di ñu leer mayul mayul dara mbaw de. ah ban may dara loolu la le ko mu indi ko rek pour mu lëndëmal waxi daaw de min ji la. daaw de min lu mu leeral Babacar Fall bu xëyee fajar euh, wut ko ko lëndëmal. da ngay seet lii rek. maanaam day inspiré wu ci kii di leeral di lëndëmal moom léegi loolu vraiment. jaaxal na ma man xaw ma yëf yi nu mu demee parce que boo amee ku mel ni Daouda Mine mu taxaw ci antenne bi. en tant que li muy wax li muy wax nekkut loo xamante ni bii tey. danga naan non est-ce que maanaam daf lay jox loo xamante ni demal gëstu ji demal génne ko léegi. Hmm, constitution bi moo boo demee sax tàppe ci net baag yi mu wan la lépp ni mu demee. comprendre hmm. ñu génn la lépp mu ñëw tegal la ko ne yëf yaa ngi nii yow nga indi koo xamante kii moom li muy wax. amul benn cislaay tegut fenn. mais kooku dey politique nag. alaaji waaye hors la loi. Mm, fi mu nii ñu dañuy xam nga politique dafa am yoo xam ne bu ñu demee ba ñaan lii ak lii xam nga dafa am yoo xam ne bi kenn waru cee politique politique waru faa dugg ko hmm. parce que yooyu mooy néewal doole yëf yi. xam nga tey jii Ousmane Sonko li mu wax ni maanaam lépp lu mu leen ma sax Ousmane Sonko problème assemblée nationale bañ fi bëggee muri mbaraanam kiir laa euh, euh, kiir la te jaaruñu ko ci yoon. Hmm. bañ ko fi woowee ne ko nañu wuyu. te mhm. muri wuñ mbaraanu kiiraay maanaam daal mu ne leen man député laa balaa ñu may kii il faut ñu muri sama mbaraanu kiiraay. Mhm. ñu ne ko ndeet ñëwal wuy xam nga loolu indi moo fi indi woon problème ba. wallaay xam nga maanaam. saa yu nekkee ci dëgg sax ñu ne ko waa sa dëgg gi dem d'accord dëgg gi moom dëgg mais mais lii du dëgg ñun lu ñu neex la ñuy que ñun li ñoom nag dañoo fàtte ni nag yoratuñu réew mi nekkutuñu ci kii bi ñoom xam nga fi mu toll nii ñoom Abdou Mbow ba léegi fekk ñi ngi xëy assemblée sax dañuy defe ne ñi ngi yor réew mi nañ xam ne nag yorutuñu réew mi waaw te xam ni li nga xamante ni bi mooy président bi woote woon cent quarante def na ko ñëwaat ñu ne ko règlement intérieur nee na da ngay def sa déclaration politique général kii ak loolu mm. ba jamono jamonoy Ablaye Wade la bañ koy fal kii premier ministre jamonoy Ablaye Wade la mm-hmm. mu lànk ci loolu lu ñu judd ci hors boobu mm-hmm. maanaam respecté wuñ principe kii yeeg yëpp maanaam nu leen neex lañ koy defee comme ni ma mën a dem voté sama carte d'identité c'est parce que man maay diw. Mhm. léegi tamit man lañ jox kii bi léegi saa yu ma neex laa ñu respecté wu ñu député. waaw ci loolu la ñu nekk nag ba di teg ci loolu lañ nekk ba nëgëni nii ba ay pexe de motion de censure pour ñu tas gouvernement beeg yooyu noonu nee nañ tamit dinañu wut seen i pexe yoo xamante ne nii président de la république dootul amati euh, sañ-sañu du dissoudre. non nañ doog foofu di pexe comme ñoom ci pexe ñoom pexe nañ ba génn réew mi seen njiit laa nga fële di wëndeel di wëndeel di dox rek. ànd ak doom ji di def shooting Macky moom ah. non léegi dox bi ba mu bari na xam naa moom li mu doon lu mu nguur woon ci roppalaan dana ko dox. Ah, mais Alaaji nag daa nekk si vacance nag fi mu toll nii. waaw na nekk ci vacance vacance <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo. ba ci nekk waaw di joxante di daje incha allah rabbi. Hmm. Eh, altine bii di ñëw ci kàttanu. incha allah jërëjëf eh, Meng kàddu yi am na solo lool macha allah di jaajëfal ñi nga xam ne rek ñoo jëloon seen temps di ñu bàyyi xel jaajëfal itam Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo ak eh, ki nga xamante te ne nii moo di Baye Assane Mesere mi teg temps euh, pression chaque jour di nuyuwaale ndeyaa bu baax a baax jox leen di daje beneen altine incha allahu rabbi